Assalamualaikum warahmatullahi taala wala kayam wala Palor TV kenn ku ci ne ñi ngi lay nuyu baax station presse locale tay ñu rendez-vous boo xam ne ñu ci am ah, kilifa gu mak doomu keur Moussa nañ ci ñew léegi inshallah ñu ci and nak ak ki nga xam moy Abdoulaye Gueye ah, sama natango sama xarit Abdoulaye ma ngi lay nuyu baax baax de ziyaara ma ngi delu di la nuyu bu baax di la jox sa way Moustapha Aljuma Ndiaye Eh, di nuyu képp ko xam ne tey yaa ngi tege sa bët ci benn élément ci élément uh, eh, APL muy association de la presse locale bu commune bu Kër Moussa ñu nuyu leen jox leen seen wàcce waay bu baax baax. nuyu suñu gan muy euh, Mouhamadou Mansour Ciss bu Sañafil Mouhamadou Mansour Ciss bu Pastef te ñu fas yéene ànd ak moom ci cadre grand rendez mu nekk émission bu am solo boo xam ne askanu Kër Moussa ak li ko war yëpp des koy xaar saa su ne donc xam naa rek dama lay delloo nuyo bi nuyu suñuy kilifa yëpp xam naa léegi léegi ñu du li nga xam ne mooy waxtaan bi incha allah. Euh, tey di altine yemoo ak fukki fan ci weeru juin atum 2024 suñu numéro 7 bi comme ni nga ko waxee léegi ñu dalal ndaanaan daanal kilifa dalal kilifa gu mag a mag ci wàllu xam-xam nekk jàngalekat Mouhamadou Mansour Ciss bu Pastef bu sañ fiil euh, comme ni nga ko waxee léegi Mouhamadou Mansour ñu ngi nuyu bu baax baax di dalal jàmm incha allah di am mbégte di dalal fii ci euh, émission Grand Plateau. merci beaucoup Adjuma maa ngi lay fay nuyoo bi. Mm-hmm. di nuyu Ablaye Dieye di nuyu téléspectateur Palor TV mm-hmm. Komo TV ak KM TV mm-hmm. voilà di leen jaajëfal tamit di leen remercier ci invitation bi nga eh, occasion la pour ñun ñu addu ci sujet yu bëri yoo xam ne jot na fee jàll mhm. te ñun jotuñ ci yoon wax mhm. donc occasion boobu ñu ngi leen ciy remercier bu baax mhm. waaye di nuyu aussi bépp leader politique bu nekk commune Kër Moussa ak ñu ñu àndal lépp di leen jox nuyoo bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tamit ndaxte gis na ni ñoom ñëpp li leen yitteel mooy communo Kër Moussa bi di nuy aussi ñëpp ñi nga xam ne jot nañ fee jaar ci émission bii nii grand rendez-vous di bu am solo boo xam ne ñëpp a ngi koy xaar ñëpp di ko déglu voilà di nuyu bépp euh, leader boo xam ne jaar na fi sama waa parti mhm. muy Pastef les patriotes bu commune bu Kër Moussa mhm. jël nuyoo bi di ko teg ci loxo coordonnateur Cheikh Ahmed Tidiane Ciss mhm. waaw mu jàllale ma ko ci mboolem patriote bu fi nekk zone yëpp zone yi nekk Kër Moussa yëpp zone sud zone nord zone centre 1 zone centre 2 Mhm. merci beaucoup. jërëjëf ci nuyu am na solo am na rafet na tey nag uh, ku fi jaar ku ne di nga présenté wu ñu mën a xam kan mooy Mansour ñu bëri dañu gis Mansour Ciss rek mais ba léegi uh, pour ñu mën a xam Mansour dëgg-dëgg mooy kan tey boo bëggoon présenté wu ci tënk rek lan ngay wax askanu Kër Moussa askanu Sénégal pour ñu mën a xam kan mooy docteur Mansour Ciss. voilà donc ci tënk Mouhamadou Mansour Ciss laa tudd. Mhm. maa ngi dëkk uh, Sagnafil village commune Kër Moussa. Mhm voilà jangé aussi fi nga xamné moy école élémentaire bu Pout jangé voilà défé aussi après eh, CM de Pout jóge fa am BFM dem lycée Malick Sy fa mes bac jóge fa dem université inscrit du faculté des sciences juridiques et politiques moy faculté de droit donc voilà, n'est que ba fa laa voilà eh, juriste aussi spécialisé ou en administration publique et plus particulièrement administration et gestion des collectivités territoriales voilà pour xam aussi aussi voit le politique maa ngi tout parti de di PASTEF est euh, le chargé des opérations électorales maanaam lépp loo xam ne jëm na ci wàllu organisation élection ci commencement bi inscription liste électorale ba proclamation résultat donc man lañ ko dénk ci wàllu PASTEF aussi Bokki, secrétaire national bi nga fait l'élection. ñoom ñoo ci te euh, loolu mais avant nga ñëw ci Pastef je pense que am na yeneen parti yoo xam ne dafa jaar ci yëngu ci wàllu politique. oh pratiquement c' est jaar-jaar yoo xam ne. Mhm. c' est jaar-jaar de soutien. Mhm. de soutien ak yenn euh, parti politique yi. Mhm. voilà mais engagement bi dëgg ci Pastef la démarré. démarré dégg naa ko mënoon football nga nag. Hmm? dégg naa ko mënoon football nga. waaw mën trop sax. on a couru trop. mais mais gars gagné à yi trop hein? non si j'étais tellement excellent en football. Hmm. j'étais un milieu de terrain. milieu de terrain numéro 8. oui d'ailleurs y a une anecdote. am a benn tournoi boo xam ne kilif organisé chaque année. oui pratiquement deux fois il faut fa teg yëpp man maa le meilleur joueur. meilleur joueur mais dina ko bëggoon naanaa nga quoi. Non. capitaine capitaine waaw. ba fàttali fait, benn bii bu rafet wax ko. bon boo xam ne c'était. bi bi ma marqué sa carrière. duggagul waaw waaw bi bi gën a marqué moom laay c'était en cadet. parce que ASC Déggo bu HLM laa doon laa football. Mhm. voilà ñu demoon ba finaal mhm. match bu am solo. oui voilà contre ASC Manko. Mhm. voilà euh, ma demoon ba match bi des une minute. ma dëgg benn balle. Mhm. dugg surface de réparation. Mhm. provoquer le défenseur. Mhm. mu daal ma am penalty. ma am penalty boo daal ma gënal loolu ma gënal voilà ci football. <laughs> Euh, yàlla def na am nga am nga njaboot am nga soxna yàlla mais dégg naa doo takk ñetteel de. <laughs> kan wala wax loolu. ah de waaw. <laughs> waaw ndax da ku ku booy roy moom booy roy ci kilifa. <laughs> Mhm. da koy roy ba mu mën sekk. ah mais dinañ wéy tax di ngeen jël ñetti yéen ñaar rek la ñuy ñaar ngeen yem incha allah. comme euh, bàyyi ki nga xam ne mooy Abdoulaye Guèye ci laaj bu njëkk ñu dugg ci waxtaan bi incha allah. jerejeuf mu melni ni am na solo xam naa pour am penalty mom deug du même logique bi nga duggal ci cadre politique <laughs> ah, non non non parce que lolu bokki jeu bi ah. ah dafa bokk jeu am penalty. d'accord tek ko ci yoon. Ah. dans les règles. Mhm. provoquer am penalty. provoquer amee c'est normal. d'accord dina ci ñew léegi xam nga am na provocation yo jotta a def ay ci rew ci ci bir euh, inshallah émission mhm. laaj bu jitu bi on entend souvent parler de docteur Mansour. do mhm. docteur bi c'est par respect ou bien dafa am ben matière bo xamne dang ci jang ba amee ci doctorat. Mhm. xam nga droit moom pratiquement titre doctorat. Mhm. Euh, titre la boo xam ne. Mhm. peut-être ci souvent médecine lañu ñu ëpp lu koy si lu ñu koy séntu. mais du ci médecine kese. parce que diplôme la boo xam ne. boo paree master. wala bu njëkk ba comme ñu suñ temps nga xam ne day yàlla woon. diplôme d'études approfondies. boo paree da ngay dem inscrire u master. da ngay dem inscrire doctorat. def fa première deuxième troisième année. soutenir sa thèse soog a am sa titre docteur. doctorat. Mhm. voilà non non la non la. demee foofu nga jaar ba soutenir. wa non man nak soutenir ma sama thèse nak quoi parce que maa ngi ciy quoi. Mhm. voilà pare pare pare gu ma thèse bi docteur bi c'est toujours entre guillemets. voilà la thèse est déjà sur la table. donc il reste tout simplement. bon des fois nag nit ñi dañ ma koy woowee damay bañ ba sonn quoi. <laughs> mais doo doo doo doo mën a expliquer souvent aju ma bu ma nee docteur. Mhm. à chaque fois ma rectifier bu insee kon na docteur tax boobu pratiquement. Mhm. ñu bëri naan ma docteur Mouhamadou Mansour docteur Mouhamadou Mansour. am xam-xam moo que est ko woowee. fu ñu ma ko woowee mhm. surtout milieu professionnel fu ñu ma ko woowee dama leen di teel a wax ne la non voilà parce que loolu waroo waroo ko nangu quoi. Mhm. voilà waroo ko nangu comme mhm. nekk goo ko. Mhm. waroo ko nangu mais comme li kii di wax wàllu xam par exemple boo jëlee les américains li ñu PhD. PhD mooy doctoral of philosophy. loolu boo day saa dañuy jëlee yow xam bi nga am. ngay ñëw rek tënku ci benn document. jeex na ñu considère la comme docteur. voilà waaw professeur là à l'université de Kies. Thiès moi allah. voilà mais depuis quel temps hein? depuis quand. depuis 2019. 2019 waaw 2019 là, intégré université bu Thiès. très bien mhm. mais avant boobu liñ am na institut boo xam institut africain de développement local. Mhm. fa laa doon jàngale fa le directeur des études. Mhm. ba ni ma fa jógee ñëw université Thiès.

léegi nag euh, mission la boo xam ne sama cabinet moom moo ko gagné woon ak euh, euh, benn benn activité ak GIZ GIZ benn ONG allemand la boo xam ne jàppale état du Sénégal. Mm-hmm. ci wàllu fànn yu bëri ci éducation ci enseignement supérieur wala ci droit du travail ci fànn yu bëri. Mm-hmm. man nag ci cadre boobu nag la sama cabinet amoon marché boobu waroon dem waroon dem Kédougou former ñi nga xam ne dañuy liggéey ci or bi. Mm, d'accord voilà mais nekkuñu dans le formel. Mm-hmm. maanaam ay dañuy ñëw di gasal seeni bopp. Mhm. voilà di exploiter l'or bi. Mhm. de manière artisanale. Mhm. léegi nag te ñooñu ñu ci bëri bon amuñu ay contrat de travail amuñu loo xam ne lié na leen loo xam ne de manière formelle. donc dañ leen doon accompagner. di leen expliquer ne dañ formaliser ba ñu taxawal ay entreprise yoo xam ne. dinañ mën a recruter ay nit. ñu am ay contrat de travail. ñu am ay protection sociale am ay protection yu jëm ci wàllu IPRES. IPM yooyu yëpp ñu am ko. donc ci cadre boobu la sama cabinet demoon Kédougou. pour defal leen formation boobu. très bien alors euh, Moustapha am naa ci benn laaj tuuti laata nga tëj porte mhm. présentation bi te mooy. Mhm. buñ ne droit c' est un peu vague xaw na yaatu tuuti. Mhm. Mansour ban droit la jàng. on vous entend souvent parler du foncier. souvent ci yeneen dossiers yi ban Mansour euh, ban ban droit la Mansour spécialisé wu. waaw xam nga boo ñëwee première année deuxième année da ngay jàng droit lépp. général droit général ngay jàng waaw. les boo demee ba troisième année c'est spécialisé wu. Mhm. man bi ma troisième année damay spécialisé wu administration publique. ah, mooy droit public. Mhm. droit de l'administration administration. collectivité territoriale. administration publique d'abord mhm. abord. da ngay spécialisé wu pendant deux ans. boo paree loolu après bi ma master la spécialisé encore qui administration publique. les jëm li administration des collectivités territoriales mooy beneen spécialisation bon ramener les day jëm ci l'administration administration ni gérer collectivités territoriales ni ñuy gérer communes yi ak nan la leen di defee ba ñoom ñu sukkaliku am développement local. voilà mais droit yi moom droit yi moom ñaari branche droit la droit public droit privé mhm. branche bu nek nag dafa am ay sous branche yu nek yu nek biir mhm. voilà Mansour nak droit bu mu jàng droit public option administration publique mhm. administration et gestion des collectivités territoriales très bien voilà jërëjëf Moustapha je pense que mën nga. Euh, euh, kon man ni foofu kon leer na ci ñi bëggoon xam euh, kan moy Mansou Ciss yaakaar présentation bi leer na nañ ci lolu xam naa ci manqué ngeen baal ñu ko def ci ñi nga xam nak moy lu mu waxtaan bi rek Ablaye ba bàyyi rek ci laaj bu njëkk bi jërëjëf xamna en tant qu'ancien joueur militaire bu gatt moom du ne marquage mais <laughs> dans ce cas ci cadre politique gis nañu euh, dénonciation yi nga xamné ne nakoy def ci sa wall mhm. en tant qu'acteur politique mais aussi ci sa domaine spécialisation ngay tuddu lu bëri lool ci cadre foncier muy mbiru souf mhm. tay ji bokk na ci li ñu mën a muy sorte yi ngeen mujj def mhm. ci cadre mouvement sam sa euh mu jur polémique nga déglu euh, ku mel ni Ibrahima Ciss alias Ngorka ñëw fi en tant que responsable chargé du foncier ci commune bu Kër Moussa ñëw fi andi plaidoirie am layyil li nga xam ne ay baaramu tuuma yoo xam ne yéen jot ngeen ko def ci domaine yu bëree bëri laata ñoo xuus ci point bi d'une manière générale yow naka nga jàngatee li nga xam ne mooy foncier bu commune bu Kër Moussa. waaw euh, Ablaye xam naa ne am na loo xam ko préciser sànq. Mhm. que droit foncier qui droit public la bokk mooy droit bi ma quoi. Mhm. voilà droit foncier. droit de l'environnement, administratif, mhm. administration yooyu droit public la bokk moom laa jàng. voilà di wax comme ni nga situation foncière. bi nga xam mo am dans la commune de Keur Moussa. voilà euh, première analyse bi may def mooy Euh, situation bu doy waar la. Hmm. waaw lu situation bu doy waar la. Hmm. ndaxte bu ñu toogee ci ab commune. Hmm. ñu dem pendant des années. Euh, ñi nga xam ne ñoo yore woon commune bi. ñoo yore commune bi dem ba ci biir di def liñ tuddee restructuration. restructuration bu ñëwee rek ça signifie que problème am na. kon déjà loolu rek wane na ñoom situation commune bi situation bu doy waar la parce que bu ñu naan restructuration maanaam am na loo xam ne jot nañ ko def. te baaxul. léegi bu comme baaxul dañ ko bëgg a baaxal. ñenn ñoo def loolu ñoom nee nañ dañu bàyyi askan wi suuf si de askan wi ñoom ñoo ko daggal seen bopp. xam nga national. parce que hmm. il faut ma loolu suuf ñetti pàcc la. Hmm. suuf soo xam ne domaine national la. Hmm. am suuf soo xam ne domaine de l' am suuf soo xam ne domaine des particuliers suuf si xam ne domaine de l' état moo koy gérer. moo koy gérer boppam. suuf si nga xam ne domaine national la état da koo transféré jox ko communes yi. maanaam maire ni leen yéen yéen ay gérer suuf si. am suuf soo xam ne domaine de particuliers la loolu moom mooy suuf si nga xam ne titre foncier la. Mm-hmm. mooy lu ñu tuddee immatriculation. Mm-hmm. immatriculation boobu yow ajjuma tey boo ci amee benn. Mm-hmm. yow cest à am nga droit li ñu naan les droits de les droits réels. maanaam tey jii. Euh, bu la neexee tey nga jaay ko. bu la neexee nga luye ko. bu la neexee sax nga maye ko. waaw loolu la ñu naan les de droit réel. kooku boo amee titre foncier yow yaa ko moom sa bopp. Euh, beneen bi mooy le droit le domaine national boobu nag laa ëpp laay laay àddu. Hmm. ndaxte boobu moom la ñu confier communes yi. Hmm. ñu ne leen léegi gérer leen ko mais ki gestion bi ngeen koy gérer man état dama ciy am. bët bu ma ciy xool ni ngeen koy doxalee. maanaam décision bu ngeen ci jël rek ci ca cëppaandaw ba man maa koy valider. Hmm. pour moom mu dugg léegi maire moom la wax ne moom moo yore loolu. maanaam mooy responsable conseil municipal bu délibéré moom moy signé bu signé jox ki nga xam mo téwal état muy préfet wala muy sous préfet wala muy gouverneur parce que ñom ñet ñep dañu nekk échelle li ñaan échelle de validation légui yow mom ñu denk foncier bi nga fexé ba mu am problème nga tok seetaan mhm. parce que tey jii nii bu né comme ni ñu ko posé question bi ni ñu ko posé question bi ne. waaw noonu la ñu ko waxee. Euh, population bi la ñoom ñoo bëgg dagg seen suuf. ajuma yow ngay promoteur ñëw tey. Mm-hmm. dagg sa suuf ba pare. Mm-hmm. man ma ñëw nekk maire. nga bëgg am kayit man la doo fi amee kayit parce que yow jaaraloo am mbir mi yoon. Mm-hmm. parce que man maa lay jox kayit. yow yaa moom sa tool daggal amul problème. même boo ci naree am dara. non waru ci am dara. ndax du ci am dara. bon. en tout cas loolu wóoruma parce que man franchement du wax lo xam ne des na ma wour mais ñom ni ñi doxee moy promoteur bu ñi promoteur bi bu waxaale ak borom tol promoteur bi day am 10% pour cent 30% voilà 30% du moins 30% 30% yoy promoteur bi kese moko mom yalla xam yaa ngi junj de li ngay waxana nga ragal wa non di question ragal sax parce que man Eh, buma toge fi di wax ak askanu keur musa di wax ak askanu senegal yeb mhm. beug na buma fi joge mhm. ku ma seen dune bu wax jee moom moo wax. Mhm. dama beug wax jo xam daf may leer nañ yaa ngi dégg. maanaam ab trente aw sept 30% yi. nee promoteur en tout cas ci contrat yi ñuy signé parce que man mii bind na ci protocole yu bari yo xamne nit ñëw na ma bindul ma sama protocole ma commune bi. man ma bind ko. jébbal ko ko mu dem yobu mais ci protocole yooyu 30 pour cent yoo xam ne promoteur bi moom moo ko moom. noonu lay demee promoteur bi nag xaw ma nag lan la waxaale mairie bi voilà ba ñu mën cee d' accord loolu moom xaw ma ci dara. Mm-hmm. mais en tout cas ci contrat yi. Mm-hmm. promoteur bi moom man loolu bind naa ci ba tàyyi. 30 pour cent promoteur bi moo ko moom. promoteur bi nag nu mu def ba discuter ak maire ba ñoom ñu d' accord loolu ñoom ñaar la. Mm-hmm. voilà te jéemoo ci gëstu. non am naa ci quelques information yoo xam ne parce que am na yenn promoteurs yoo xam ne nee nañ ma carrément bon comme loolu wóoru ma carrément yenn yi mais de yi waa mairie ñoo ko jël ci moom. mooy 10 pour cent yi. waaw waaw 10 pour cent yi. mu a wax. mais prend 10 euh, pour cent euh, bi mu ñëwee fii ñun teg nañ ci baaraam ni ko 10 pour cent yi mu ni non mairie amul 10 pour cent yi. waaw parce que xam nga duñ ko bind fenn moo tax waaw ah, duñ ko bind fenn moo tax. duñ ko bind fenn mais promoteurs yi ñoom xam nañu xële na ñoom am na loo xam ne euh, diglante nañ ko ak commune. Mhm. te ñoom dinañ ko wàcce wàcce war warloo. loolu nag mais mais mais yow Mansour bi nga bi nga dégloo euh, keroog Ibrahima wax bare mhm. am ngeen ay ay conseil municipal yoo xam ne ñoom ci seen parti lañ bokk nekk foofu ci euh, ci commune bi xanaa yow wutoo ay information ci ñoom mën a xam ndax li ñuy wax lu am la wala amul. noo xam nga promoteur. promoteur bi moom bu la waxee par exemple ne. Mm-hmm. maire jël na tant pour cent. Mm-hmm. promoteur bi mu ngi yàqal boppam. waaw ah. voilà day yàqal boppam. Mm-hmm. parce que bu ñu xamee ne promoteur bii moo ko wax. bu soxlawaatee bu ñëwaatee. duñ ko defal li mu bëgg. waaw ah. te boo xoolee xool circuit bi ni muy demee. promoteur yi nga xam ne am nañ yenn affinité. loolu dañ koy wax mu leer. am na yenn affinité. la commune. promoteur yooyu donc ñooy andi ñu valider leen seen i kayit. Mhm. parce que gis naa ci ay promoteurs yoo xam ne. Mhm. pare nañu defar nañ seen kii ba pare. Mhm. mais biñ ñëwee dañu leen mënoo leen am kayit. voilà donc foofu ma continuer. toujours pour wax la ne. Euh, promoteur bu ñëwee waxal borom tool yi ba pare ñu dem ci mairie bi mais maire bu fekkee de par exemple gis nga ne lotissement bi jaarul yoon. mais man du ma ko valider su ma ko valider wul yow aju ben promoteur bu déggee ne ajuma ba mu demee dañ ko kiil passé que jaarul yoon ainsi de suite ainsi de suite mais ñom ñep dinañ ñew waccio ak yoon. Mm-hmm. mais bu féké par exemple promoteur bu ñew ngeen du ngeen xol ndax dagg baxna wala baxul du ngeen vérifier amul contrôle sur le terrain yépp amul yow nga valider kayit yi dem ba ci biir nga rendre compte li may valider li yépp pendant des années presque pendant 20 ans ma ngi valider. Mm-hmm. ay kayit xey benn jour ne bara damay def restructuration.

moi par exemple boy dagg. Mhm. dafa mbedd yi dafa wara normal. Mhm. boy dagg da nga wara baye espace public. boy dagg c'est-à-dire en résumé 70% yo xamné 70% qui espace bi. 70% mhm. c'est réservé à l'habitat. euh 15% yi dess c'est réservé au à la voirie manam yone yek ken xamul ak yoy 15% yi dess c'est réservé aux espaces publics place cimetière yek voilà place publique yek place jak yek yeeg place yenn infrastructure sanitaire yek yoy loolu lañ koy réservé mais lotissement bu amul lolu mais nan lañ ko meuna jallé mu jall mhm. c'est parce que tout simplement il y a des intérêts cachés derrière. Mhm. lolu nañ ko wax. manam manam c'est-à-dire commune am na. benn baatu olof bi. voilà wax manam commune bi ci gennaw promoteur bi amna lo xamné da ka daka ciy am. Ah, c'est ça lolu moy la confirmation ci li question bi nga xamné mom lay njëkk a laaj mooy lan lañ ci am. waaw mais c'est-à-dire lolu loolu mënuma wax ñaata la ciy am. <laughs> <laughs> d'accord mais amna na ci am ça c'est très clair. <laughs> Hmm. ça c'est très clair. Hmm. lool mom moom lool mom. c'est-à-dire soxlawul amna na yenn yoo soxlawul ñu nan la par exemple li moy preuve bi li moy preuve bi mais dalay lerr na li ajuma hmm. tay ji ni amna parce que promoteur yi Franck ku mel Ibrahim mom biñ bi ñu ko bi ñu ci dañ ni kenn ku ci ne la amon ci ay terrain lool lay amat donte ne terrain mën na wàññeeku bu fekkee vingt sur vingt la woon amaana mën na wàññeeku ndaxte mbedd yi ñu war a génne ak hôpital yeeg yeneen yeneen yu comme yooyu tudd la jàkka yi moo tax affaire mën na gën a wàññi waaye kenn ku ne la nga amoon loolu ngay amaat même fekkee ne dafa am koo xam ne dañ ko dañ ko jaayoon mu ñëw gis ni kat la amatu fi moom moo bu boobaa moo waa maire waaye du nekk ak borom tool bi waaw parce que euh, loolu c'est tout à fait normal parce que xam nga lan moo tax administration bu defee faute mhm. mooy assumer la responsabilité mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ñooñu dañoo amone ay kayit yu normal en bonne et due forme. Mhm. yo xamné maire moko signé yo xamné euh nu mu ça représentant de l'état moy sous préfet signé ko. Mhm. kooku tey jii nga nar ko ñàkkloo ki lo xamné du fotam yegul timul mais kooku mënul nek yow administration mom commune administration communale ñom ñooy assumer la responsabilité ne comme li ñun la. Mhm. ñun ñooy assumer responsabilité bu amé charge supplémentaire aussi. Mhm. ñom ñokoy fay. yakarna amna am ñu fi togon fi euh, mhm. andi won fi benn amone fi benn cas restructuration. muy wa muy wa muy wa kini fi je pense que nañu très bien la situation. ils ont recruté benn cabinet bo xamné mom mom moy moo chargé wu en charge. mais c'est normal terrain il faut mu wàññee ko parce que mbéd yoy 70% 15 15 yoy quinze ma lay wax 70 15 15 yoy ma wax. il faut à la couleur il faut ñu respecter ko. te pour ñu respecter il faut am ñu nango perte mais en principe qui auront une perte moi le maire moi la commune. Mhm. parce que moi, mon suis à l'origine de cela xam nga mhm. droit nul ne peut se prévaloir de mhm. sa propre turpitude. manam yow ni fait ba def bobu yow pour am ci mënul parce que yow ya nek li tax li andi problème bi ci yow la hmm. en tant qu'administration, administration da ngay assumer ses responsabilités maintenant le problème bi ci am moy restructuration mënut am tant que waxtaanoo les concernés mënoo tepp xeyna damay restructurer. mais les restructuration dafa laaj waxtan hmm. restructuration xam nga dañ ko prévoir bu doon prévoir ñu ko duñ fi nek du tour bi hmm. n'est-ce pas dafa am restructuration dañ koy prévoir mais dañ nan da ngay waxtan ak ñi nga xamné ce sont les concernés. Mhm. ba ngeen trouver ay points d'accord mhm. mais do xey benn jour rek na damay restructurer information bi jàllul. Mhm. borom tool yi ko amna ño xamné bo défé restructuration ba pare amana ñu ngi teud ñu ngi teud Kaolack yaakaar ne am nañ seen terrain fi xey benn jour ñeu comprendre ñu dara li xew. alors que en principe man borom terrain man bar borom tool borom tool bi xam naka ko képp jaay dama ko répertorier. yóbbul ko mairie. Hmm. mairie moo koy contacter ne ko andil ñu sa kayit sa photocopie ma leeral foofu. Hmm. maa ngi gis mairie yi ñuy demander ay originaux. ah bon oui ah. mais du original bi la ñuy laajtee hmm. sa original boo ko joxee lan ngay desee comme preuve képp ku ñu laaj ci cadre restructuration dama lay wax bul joxe sa dossier sa papier original. photocopie nga original bi kañ nga koy joxe buñu dem ba war la joxat benen terrain. Mhm. ci restructuration bu paré mhm. si original bi. ñu jox la jox la bu bess mhm. mais bu kenn joxe sa original. sa original boko ko buñu la né joxe woko nak ëlëk té boko amul preuve buy c'est original da nga ko risque la. donc képp kuy joxe nga c'est sa photocopie sa original. original vous ba paré yow bu ñu la a jox terrain ci restructuration bi nga de soog a dem nangu sa original. Mhm. jëlaat sa beneen këyit bu bees loolu mooy loolu mooy. alors est-ce que discours boobu Mansour weesul parce que gis nañu affaire bi bañ ko lancé dafa nekkoon benn temps bien <laughs> déterminé bu précis nit ci sax dañu doon profité boobu dégguñu leen yéen en tant que des leaders ngeen génn ci def ci communiqué est-ce que weesul. non peut-être dans le cadre ci parti politique mhm. mi àdduna ci bëri. ensuite amna ñoo xamna ñu bëri dañ mo doon wo hmm. néma maire ñoom wax naa andi sama kayit man na leen bu leen joxé séni dossier original. Hmm. voilà. Hmm. lool mom pratiquement def naa ci page posté naa ko sama page Facebook. en tant que en tant que leader politique aussi waroon ngeen mëna def déclaration éclair li nga xam moy mooy. waaw lool lool aussi mën na nekk. mais de toute façon. Euh, li ci jot am man en tout cas personnellement def naa ci li nga xam japp na né euh waron naa ko ci def moy alerte na ñu bëri ne leen bu leen joxé seen document original. document original boo koy jox da nga koy teg fu lu leer. Mhm. ñi nga xam ne ñoo xam dañoo dem ñu ne dañu dañuy jël seen dossier noonu sans dara man leen noonu bu fekkee dañoo insé dañuy jël original bi. Mhm. nangu leen ñu signal leen décharge. ngeen mhm. garder décharge bi. pour wan ne yéen seen original ajuma sawul ajuma saarul ajuma. njaay laa ko jox. moo ba garder loo xam ne ëllëg bu ñu naan ah ajuma kat moo signé papier bi wane na ne. man joxoon naa ko sama document original. su boobaa man ak ajuma lay nekk. restitution bi dafa war a nekk pour commune bi. gis nañ ko mu tàmbale ci yenn lieux yi ndax yéen seen côté àgg ngeen ci pour le moment yow en tant que spécialiste ci domaine bi naka nga jàngatee da nit ñi noonu la ñu war a aborder li nga xam ne mooy restructuration bi. waaw man je pense que ne bu nee restructuration coow problème am na. Mm-hmm. kon donc bu problème amee nañ nangu toog. régler le problème mais il paraît que nak ñu ci bari buñu gaay dañuy ñëw waxtaan ak population bi yeen leader yi peut-être nga bokku ci peut-être kenn bokku ci génn nit ñi bu leen ko nangu ñi dañ leen di nax non man mom en tout cas ku mo dam na dem leen parce que restructuration dañuy défarat dafa baxul ñuy défarat comme dañuy ba def baxul dañuy défarat da ngeen di dem hmm. mais lima ki leen di tégal moy bu leen joxé sen original mom voilà mais à chaque fois ku mo wax restructuration dam na restructuration moy problème bu am rek hmm. lañu war ko défarat parce que hmm. suñu côté bi pratiquement du problème restructuration man côté bi ma dégg Saint-Fil jëm ne. côté boobu pratiquement côté régularisation la. Mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. parce que dafa am restructuration. mooy cas bu ñu defee lotissement sauvage comme ça. Mm-hmm. ñu war ko defaraat. am ñoo xam ne euh, régularisation la. maanaam tey jii yow man par exemple parcelle bi ma dëkk. alignement yi njëkk yi la woon. aw ma woon kayit amul woon dara damay dem mairie ñu régulariser ma ko. maanaam pour ma am kayit bu leer bu wane ne fi ma nekk man maa ko moom. Mhm. waaw yooyu mu amul problème. Mhm. mais yi nga xam ne moo am restructuration mooy yi nga xam ne dagg nañ ko dagg yi baaxul jaarul yoon te mairie moo ko validé woon mairie bëgg a ñëwaat encore ne leen il faut ñu defaraat ko comme dañuy defaraat képp ku ci am terrain na nga dem ñu defaraat. Mhm. voilà mais daal nañ ko teg ci yoon original bi waxtaan bi na am parce que chaque fois bu amee résultat dañ naan nañu waxtaan ak d' abord. Mhm. les concernés. les concernés ba concerné yi d' accord. ñu d' mhm. mhm. ci nekk la nga war a amaat ñun la par exemple sa parcelle bi mën na wàññeeku parce que tout à normal. foo xam ne mbedd waroon na fa jaar jaaro fa bu ñu fay jaaral mbedd ku nekk la nga amoon c' est normal que mu wàññeeku. alors yow en tant que spécialiste aussi ci wàllu suuf ndax sa xel dal na ñu am fi li nga xam ne mooy commission domaniale moo waroon peut-être chargé wu li nga xam ne mooy liggéey boobu ñu jëli beneen cabinet yow lo ndax jàpp nga ne logique la wala am na leneen lu ci am. waaw no cabinet bi man pour man cabinet bi population bi nga xam ne ñoom ñu am problème ñoom ñoo dem contacter ko. waaw waaw mhm. mhm. c'est-à-dire tey jii daa mel na man tam sama cabinet mhm. bu amoon par exemple ñoo xam ne dañ leen dugal ci restructuration bi buñ ma wooyee man ma liggéey signé ak ñoom contrat ci cadre boobu ñu defandoo liggéey ba mu jeex loolu man pour man amul problème non non non pour man amul ben problème parce que ci cadre liggéey la cabinet bi cabinet privé la day accompagner population bi ba li nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg li ñu bëgg ñoom ñu jot ko voilà accompagnement boobu nag ay contrat la boo xam ne da koy signé ak population bi signé ko aussi ak maire parce que maire il faut mu nangu ci protocole boobu cabinet bi ne man lii mooy doon sama liggéey mhm. maire bi ne lii mooy doon sama liggéey population bi ne lii lañ d'accord mhm. waaw noonu lay noonu lay demee très bien d' ci ci même euh, problème suuf bi ba léegi yow doomu sañ a fii comme ni ko waxee ci présentation bi euh, gis nañu euh, benn teef boo xam si bu am jafe-jafe la foofu au niveau sañ a fii gis nañu ko xam nga yaakaar naa moom Modou Yoro Diallo la xam nga fàttali tur yaakaar naa ne ah. Modou problème boobu naka la demee parce que ñu bari nañu ko dégg comprendre ñu sañ a fii depuis. ñaata at mi ngi fii ñu loolu la maa demee coow loolu dugg sañ fii aussi ñu gis ko ci euh, seen conférence presse ak euh, sàmm sa moomeel bi loolu waat nañ ci ay yoonu yoonu yoon euh, dem di dalal nañu Ibrahima Ciss mais amuñu woon temps bu yaatu bu mën a leeral point boobu noonu am nga tey occasion mën a leer nit ñi lan la ak aussi lan la ñu war def comme solution problème boobu. waaw problème mu bu Saint-Fil bi benn titre foncier la boo xam ne yàgg na trop sax. Mm-hmm. voilà titre foncier bi ki ko moomoon muy euh, ndem si yàlla Mamadou Yoro Diallo yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana incha allah voilà moom moo amoon euh, problème ak euh, waa Sañafil mhm. boobu yàgg na pratiquement peut être fekk sax ñun nii ñuy soowu juddu mhm. voilà léegi ba mu ñëwee ci problème boobu benn parti Sañafil mhm. ñu réglé woon ko biñ ko réglé titre foncier bi dañ ko dindi ci turam def ko ci turu état du Sénégal état du Sénégal jël ko rétrocédé ko jox ko la population de Sanéfil. ok Mamadou Yoro Diallo ñu jox ko feneen foo xam ne pour moom li nga xam ne ñàkk na ko ci commune kër ci Sanéfil. Sanéfil ñu ndàmpaaye ko foofu moom mu dem foofu. Mm, d'accord voilà. wecc ko léegi waaw wecc. Mm-hmm. parce que nit ñi dëkk nañ fa ba pare. Mm-hmm. état mënul nangu. Mm-hmm. benn privé ñëw. Il fi nga des populations ont pendant des années. lo xamné été lolu titre foncier bi. Mhm. xey jour ñu leen di mhm. du Sénégal jël affaire bi en main. Mhm. Euh, immatriculé. turam. jox Mamadou Yoro Diallo Il ci la tolok la nga mom la am sañ fi ñu jox. vers les années quatre la. vers les années 80. n'est-ce pas. ok voilà. léegi ay années 80, 80, 80, ba 83 hmm trois. voilà parce que ñun dék pratiquement féké lool ñun féké wuñ ko. macha allah léegi ma continuer. waaw légui mu doon titre foncier bo xamné état du Sénégal mom moko mom hmm. droit réel mom moko mom hmm légui tok ba pratiquement en 2020, 2021, 2022, sax plus précisément. ci hmm. Hmm. domami wala sëtam kenn. hmm ñew né euh mom mom sañafil oh parce que ban sañ a mooy sañ a bi nekk fële. mooy mooy jaabul ruus. mooy jaabul ruus voilà. Mhm, mhm. ñëw ne moom moom moom foofu. Mhm. léegi bi ñu ko nee moom moo ko ñun la ne moo ko moom mu jox ñu benn titre foncier. oui muy titre foncier bi nga xam ne bi ñu demee fële ne la impôt ba ñu vérifier titre foncier état la mooy bi nga xam ne état moo ko def turam. jox ko waa sañ a fil. ñu ñëw andil ko ko. mu gis ko mu dem. ñu jékki-jékki mu ñëwaat andiwaat beneen titre foncier boo xam ne. du sañ a fil lépp. mais yaakaar naa yow envoyé naa la envoyé naa la document yi. bu fekkee ne waa régie mën na. voilà envoyé naa la document yi. régie bu fekkee am bi. Mhm. mu am ci benn partie bu ndaw mooy bi jëm ci côté Almere ak kër nekk ci Almere yi. Mhm. mu ne moom lii la moom. dem di négocier ña dëkk ña fa installé foofu pour mu xool. waaw kon euh, voilà titre foncier. Euh, am ma affiché am nañu nii. voilà ma nga décortiquer. titre foncier global bi. Mhm. moom moo nekk nii. ok. titre foncier bi concerne Sagnafil la concerné. Mhm. lépp mom ba mu ñëwee nak mhm. dañé li la moom. Mhm. mu jox ñu numéro bi. ñu dem impôt. et domaine ñu vérifier moy titre foncier bo xamné état du Sénégal moko mom d'accord kon donc mu concorde ak li nga xamné ne ñun ñoo ko woon état du Sénégal. ba mu ko jëlee ci papam dako immatriculer jox ko population Kër Moussa. ñu démat un an après mu ñëwaat. ci biir titre foncier global fii. mu am ci benn titre foncier benn partie. côté côté Almere est-ce que ñëw xamuñu ni mu def ba am ko. Mhm. ñëw négocier ak ñi nga xam ne. Mhm. déjà dëkk nañ foofu. benn parti boobu ay trois kër wala quatre kër. waaw ñooñu leen loolu duñ ko def. Mhm. noonu la demee. léegi mu ne du laal almeer yi benn parti bële féete ne la nga xam ne kenn dëkku fa tool la. ak benn parti boo xam ne. boo boo jógee en général boo jógee Pout. ma loolu boobu dugg noonu. dem sa xam naa kay armée bi xam naa xam armée bi après raay bi la nekk. diggante voilà maanaam da nga yoroon armée bi mel ni ko dem ko ñëw juba. ba kay diggante boobu la. diggante bi féete nii. loolu la moom léegi ñun tamit ñu demaat wutaat. Mhm. droit réel wut xool droit réel foofu. Mhm. ñu xool ñu gis ne. Mhm. foofu dafa am problème. Hmm. waaw bi problème bi. problème bi mooy. et je suis ngeen fi invité fi mu wax né ngeen laaj ko euh, problème saint bi. Mhm. mu adressé ma directement ne ma man dama wax né mhm. dafa am superposition té fofu amul superposition man dama suis né Ibrahima wax. waaw bon bëgguma tudd ah, mais non amuñu problème. non franchement parce que ya du bëgguma personnel du du dara. Ah. ay relation. c'est juste pour baña waaw personnaliser débat bi quoi. Mhm. waaw loolu rek laa ciy bañ. moo tax du bëgguma di insister. ci tur bi si quoi ñu mun a afficher le droit réel bi. droit réel waay. voilà rapidement waay. Mhm. juste pour bañ a personnaliser débat bi. waay mhm. voilà euh, superposition. peut-être moom dafa comprendre lan mooy superposition loolu laa bëgg a jàpp. parce que boo diggee superposition mooy. am na un titre foncier. boo xam ne mu ngi fi tege. ki titre foncier bi. commune def ci ab délibération maanaam wut ci hmm. ay këyit yoo xam ne jox ko ay nit. bi mooy kaw titre foncier droit réel moo nekk nii droit réel bi moo nekk nii état du hmm. Sénégal la. xam nga lii leer na. kan mooy Abdoulaye Ciss.

bañ wax ko ne ko diw moko mom mhm. preuve preuve foncier bi état du Sénégal moko état du Sénégal parce que état du Sénégal mom moko ko ki woon ci loxo Mamadou Yoro Diallo. Mhm. récompensé Mamadou Mamadou Yoro Diallo jox ko sañe fil mais lam moy firndel ni état du Sénégal jox nako wa sañe fil parce que gisaguñu ben document bu firndel lolu wa xam nga xam nga dafa am procédure procédure bo xam nañ koy respecter mhm. état du Sénégal da koy jël def ko ci turum ba paré jël sañe fil ne len xol len nan ngeen kay dagaté ku nekk ñu génn le titre foncier individuel. non lay démé est-ce que lolu mo ngi non lolu amul lolu hmm. mag ñi doon négocier jotuñu ko def donc batu état du sénégal moko jox saña fil ci lan nga ko tek wa parce que lolu mo porter lolu mo nekkoon négociation yi hmm. lolu mo nekkoon négociation entre kilifa yi fi nekkoon hmm. ak momadou Yoro Diallo bobu négociation verbale bon xawmu nak exactement parce que bon comme nim la waxé waxee <laughs> mais comme bind ka war nga war nga gis ben protocole wala protocole wa non man bon awma lo xamné ne na pour wala né li protocole bo xamné mom mo kii woon moom moo lié woon mhm. les partis mhm. mais li nga xam ne moom mooy moom la ñu mën moom la ñu suñu mag ñi wax ne nañu mhm. li ñu waxoon en tout ñu gis nañu nee nañu état du Sénégal jël na suuf si def ko ci turam turu état léegi état moo waxoon yéen après yéen yéenay continuer procédure pour que ku nekk individuellement Il faut la titre foncier individuel. Il titre foncier xam avoir un titre foncier. Mhm. Mhm. titre foncier titre foncier état la. titre titre foncier privé privé effectivement titre foncier état toujours. Mhm. un état état effectivement bu nit ki daf titre foncier, titre foncier individuel. Non processus il fallait mu soo ko bàyyi waa Sañafil ñu continuer def processus bi ba ku nekk fa nga nekk ñu amal la sa titre foncier individuel. d'accord loolu noonu la waroon processus boobu noonu la demee. te processus boobu. Ah. ba tey jii weesagul. weesagul mën nañ ko def parce que état. Mhm. titre foncier kii boobu titre foncier boobu titre foncier état boo xam ne da koo rétrocédé. Mhm. Euh, Sañafil léegi ma kon di leeral foofu. ba ba ngay dem dama bëgg a xam euh, sax ma dégg nga ne état bu Sénégal am na am na lu mu wecci Mamadou sa euh, Mamadou

instant bi ñu ngi top loolu. Mhm. parce que batay affaire bi. Mhm. daf ko dam bi da ko yobu justice. ok gisoo moo waral conférence de presse bi. Mhm. bon nanguma ci won sori ci bir ok mais dafa dem justice. ba convoquer won nañu audience. te problème bi ñu ñu convoquer audience. du <laughs> la population de saint fila xam nga lañu convoquer audience. moy dag yi nga xam commune def nako fa. par exemple yow ñu affect aljuma ñu jox la ci terrain. waaw dam bi ñooñu la convoquer

boole waale ci chef de village parce que c'est normal. oui voilà ñun nag ci cadre boobu lañ ci doon àddu parce que ñun ñooy jàppale ci liggéey boobu ñun man Medoune Ciss ak mhm. euh, Ablaye Ciss Ablaye Ablaye Ciss boobu. lan moo ci dugal le maire de la commune de Kër ba ngeen envoyé ko note d'information. voilà parce que tout simplement. Mhm. ci titre foncier boobu moom da cee def délibération. titre foncier bu état. bu état. Mhm. da ciy def délibération. te délibération boobu moo waral ñooñu noonu ñooñu ci am kayit ñu convoqué leen aussi tribunal. Ibrahima nee peut-être ni la ni la titre foncier bi réeré non la lay réeré. non titre foncier bi réeruma <laughs> non mom dégg naa ko muy wax lol mais titre eh. foncier bi réeruma. Hmm. franc titre foncier baa ngi nii réeruma. au contraire. Hmm. man titre foncier mën na ma réer ça ne pose aucun problème parce que hmm. dénkuñu ma benn responsabilité ci maire yi. moom dénk nañ ko ay responsabilité ci maire bi. maire denk nañ ko ay responsabilité tay bala ngay délibéré dafa am une enquête préalable boy def. n'est-ce pas. Mm-hmm. xam suuf si kan moo ko moom nan la tëddeeg yooyu. Mm-hmm. mais ñu ne la délibéré rek nga signé nga délibéré. donc liggéey boobu moo des. travail sur le terrain. non travail boo xam ne travail d'amateur la. Mm-hmm. c'est-à-dire li ñu naan taf yëngal pilotage à vue. loolu la maanaam tey jii yow mënoo dem di dagg fenn te renseigné ci ba pare. ajuma. man yow mën nga dem gis benn ndam da fay fay fay ñëw. wutal ko dem ne damay dem mairie wutal la kayit mairie wax est-ce que am na droit ñëw di la wutal kayit ndam da fay fay boobu xam nañ kan moo ko moom xamuñu lan boy tax ñu xam ko moy dañuy dem def enquête préalable. Mm-hmm. enquête préalable boobu chef de village bi kep ko xamne ne mën nañu jox une information claire si souf si kan moko ko kan moko mom ñu def ko ba mu leer nañ mm-hmm. mu ànd ak ay papiers yo xamne c'est des procès verbaux yu leer nañ bo xam par exemple village tel chef de village bi attesté na li village tel imam bi attesté na li wala tel notable attesté na li ñu soog a mën a sukkandiku ci loolu délibéré. donc waa sëñ mais nga délibéré ci kaw titre foncier jàmbur. Mhm. ba leeral ko loolooy superposition. Mhm. mooy titre foncier ñu defaat beneen délibération ci kaw moom dafa weddi ne amul superposition. Mhm. ci biir waxam yi mu ne am délibéré nañ fa parce yëguñu ko woon. daf daf leen ump. mais je waa mooy côté boobu côté bi daam bi wax ne. moy dame bi titre foncier bu mujjé andi. côté bobu mhm. quatre personnes la concerné. Mhm. d'ailleurs ñooñu lañu convoqué. mais ben côté bi des yépp mhm. mais yoy titre foncier état la. té délibéré des encore très yoy amul problème parce que titre foncier état la bo xamné lañ ko jox. yoy mul am problème mais yi am problème un li nga ne bi néna moko mom titre foncier jambour la. té commune def ci délibération. bañu ña nga ne am. ay tool ay ay ay ay euh, ay kër kër sax laay parce que tabax nañ fa. së euh, së sëriñ euh, ñi ñi nga xam ne si boo baal ma sëriñ bi yaakaar naa xam tur bi. waaw waaw xam ne sëriñ ni ñu koy war a mën a <laughs> sëriñ. effectivement <laughs> ma ah. <laughs> a mën a sëriñ directement. sëriñ sëriñ bi sa bàyyi état yaa wax ne léegi am ñoo xam ne woo nañ ne tribunal yoo nañ wàllu yoon. Mm-hmm. fa lañ toll kon ci yoon loolu. waaw dossier bi daf ñu amoon benn audience. Mm-hmm. man mii bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo doon piloté dossier bi au niveau du tribunal. Mhm. Euh, dañu convoqué benn audience. Mhm. ñun tamit ñu wut suñuy avocats yi suñ ñëpp pour prendre en charge tout le monde. parce que village dañoo du affaire u mhm. ñaari nit ñetti nit quatre personnes yooyu. dañu jàpp ne affaire village bi la. village bi yëpp da koo jël en charge. voilà bi ñu demee audience boobu dañu renvoyé audience bi. voilà. ba tey nag waaw dañ ko renvoyé. ba tey nag ñun ñu ngi xaar. en tout cas euh, kon sañ fi yéen ci problème kon. bu dee bu dee ñu dégg nii moom noonu la demee bien sûr mais y a problème mais bien sûr y a problème. moo tax ki ngeen fi invité keroog ni mu waxee. Mhm. mais bett na waa Sañafil nag loolu dama koy wax moom mu dégg ko ah. waa Sañafil bi ñu ko mhm. déggee mu wax. Mhm. non métti na leen trop quoi. parce que dafa wax loo xam ne xamu ci dara. te wax balaa muy neex. li ngay wax nga xam ci. est que doo doo loolu. est-ce que doo waxu waxu politicien ngay wax fi mu toll nii. non pas waxu politicien ji nga ci bi may pa bi may waxee nii. ci cadre bii nii. Mm-hmm, mm-hmm. je me considère comme un citoyen de Sagnafil. waay war a défendre les intérêts de Sagnafil. Mm-hmm. n'est-ce pas. donc wax yooyu mu wax noonu. ba dëggal ne état du set du moins daam bi. dafa daa am na fa kii kenn xamul ak yooyu. loolu c'est pas vrai ngeen baal ma ci terme bi. moom xamul dara dara dara. au contraire. nous mhm. ñoo qui waroon xam dara mhm. est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que Mansour yéen tamit yéen nga xam ne xam nga dara est-ce que doon baax ngeen a euh, gisee maire que pour jox dit les les informations pour ngeen booloo doon doon que pour am am am voilà léegi. dossier dossier que la am dit information lettre mhm. dañ ko adressé monsieur le maire. ok kon résumé nañu dit dañ ko ko adressé wax ko ne ko que mooy situation bi. chef de village dem ba ci mom tok ak moom waxtaan ceeg moom. Mhm. mais amul benn jéego la la benn jéego. Mhm. buñ ci def. est-ce que maire limu tukki won motax comme ñu bis na léegi. non li may wax yaa gën a de. Ah. lettre bi sa date de 2022 buñ ko projeter di ngeen ko gis li ok sa date 2022. waaw mhm. ba tey jii nii. sa date de 2022 le chef de village. le 12 octobre 2022 2022 voilà. parce que document bi envoyé nako Ablaye. lañ ko ko envoyé woon jox ko toutes les informations nécessaires. amul benn retour. amul benn retour chef de village dem na ba toog ak moom amul benn retour. Hmm. kon tey jii yaakaar naa ne. Mhm. koo xam ne su soumettre nañ la un dossier. Mhm. waxoo ci waxoo ci. Mhm. buñ la invité émission war nga am mandu goo xam ne. do ci wax. est-ce que est-ce que tamit li ma gis tamit wa ànd devoir Kër Moussa ak ñeneen def am ben cabinet buñu bokal euh, buñu dem waxtaan pour mu jéem wo ben benn parti bi buñu tok xol xool nu ñu euh, négocier waxtaan xam si femme bi soit mu séddee ci ci ben lu ñu ko comme condition way ma mu. non xam nga xam nga waxtaan bi. Mhm. fan la doon nexé femme bi bu mu ñëwee adressé wu directement ak chef de village waxtaan ak moom. Mhm. mais femme bi bu mu ñëwee lan la njëkk andi ay citation directe. ah gendarmerie. ouais femme bi dernière fois bu mu fi ñëwee ñun ko dàq ne ko du fi dugg. te yooyu c' est des ah, problème la problème la parce que je le dis encore. Mhm. la population de Saint-Fil du ñu nangu en aucun mhm. seeni suuf soosu ñu koy jël. kooku c' est mhm. te daf ñoo jaral lu ne nag. waa commune bi. comme ñoom ñu ngi ciy àddu. ñu ngi leen di xaar foofu ñoom. voilà. foofu loolu laa foofu loolu laa fa bëgg a tëjee que ne. waaw Sagnafil population Sagnafil. Mhm. du ñu nangu en aucun mhm. ak tous les moyens yi ñu jël gendarmerie police ak yooyu yëpp ñëw fa. Mhm. na suñu maam yi defoon ba résister. Euh, Mamadou Yoro Diallo. ñu noonu la ñuy defaat encore ba résister waat contre ay doomam yi. ça c'est clair bu dee maire nag comme ñoom dañ ko ciy jàppale ak ki ñu invité woon fi dañ ko ciy jàppale. waaw ñu ngi leen di xaar.

gis nga. di la ñu adressé woon monsieur le maire. Mhm. ba tey jii sans suite. Mhm. voilà léegi yow. en mhm. terme de droit comme ni nga ko waxee. ñu topp yoon boobu. kooku amul problème. mais bu fekkee dafa laaj leneen aussi. ñun pare nañu ah. ñaari xeex yi. waaw ñun pare nañu. jërëjëf parce que en aucun cas je le répète encore. le maire ñi mu àndal ak ñëpp police ak gendarmerie ñëpp. ñu ngi leen di xaar fofu mhm. ñu ngi xaar. voilà euh, d'accord merci beaucoup euh, Adjuma je pense que temps baa ngi dem mënu ñu accélérer. benn ben tomb bi ñu ñaan yalla loolu am safar ci jamm salam bo ñu dreen bañ fa tour ah, parce que sama mbokk séeréer ci ma ngi leen ñaan rek nañ ko comme sama mbokk jàllo jàllo yi. Eh, ñok ko sama mbokk séeréer ñu fexé waxtaan rek jamm am daal <laughs> man loolu la ci ñaan ah. hmm. euh amna ci benen ciow bo xamni degg nañ ni jamono yi passé and nga ci ak euh, ñu bari bari han ah. ñom Aliou Diouf gis na la ak ñoom Ibrahima Pouy bu hmm. euh ngeen am benen benen forum bu ñu amone fi ci boor yi kër mo ci benen benn place dama bañ def publicité moo tax euh, ngeen waxtaan ci problème mu njaxat mm. njaxat am benn usine bu fa nekk boo xam ni dafa ay batterie muy defar mm. mais la muy génnee dafa am ñoll yu fay génn yoo xam ne si mhm. baaxul ci askan wi loolu ngeen wax yéen mhm. ba taxoon ngeen amoon ci ay jéego ngeen def xeex ci ba mhm. ànd ak honorable député ba loolu ñu tëjoon ko encore dañ ko ubbiwaat léegi keroog ki ki ngay junñu noonu sa xarit boobu di Ibrahima Ciss dédicace na la keroog wax ni euh, Mansour bala mooy wax na am firnde lu leer <laughs> ah noonu la ko waxee ni Mansour sama xarit boobu docteur la <laughs> borom xam-xam ba wax na am lu leer loolu mu doon junñu noonu da nga ci am yu leer wala déet waaw xam nga des fois euh, des fois euh, nit booy wax c'est-à-dire ka ngay ka ngay waxal mhm. nga natt ko ba nga xam ne borom xam-xam la mhm. nga natt ko ba nga xam ne intellectuel la mhm. nga dégg ko mu waxee nen ba pare nga jël waxam di ko suufeel xaw ma ndax comprendre nga wala dëgg naa baax nga ajjuma un médecin taxaw jañu sikki nit ba wax ne lii la am. yow ajuma man mi jàngul. médecine. mën naa taxaw di la weddi. man mënu ma la weddi. est-ce que loolu am na. non dama ne exemple laa la àgguma ci tontu bi. ah, ah dama lay wax de façon générale que mm-hmm, mm-hmm. koo xam ne c'est un spécialiste. yoon may ko muy attesté. Mm-hmm. bu waxee ba pare. man mi jàngul médecine dara aw ma aw ma droit weddi ko. bu ma la bu ma ko bëggee weddi damay dem wuti ay firnde yu leer. foofu li ma bëgg a wax mooy. mom daf ne mhm. man intellectuel la mhm. man bu may wax dam ko wara tek fu leer mhm. mais bu mu nangone man intellectuel la rek la waro nangone man sama wax tek nako fu leer fa nga tek sa wax du conséquence directe de hmm? du conséquence directe wa dama ne mom bu ko nangoo bu nangone Abdoulaye bu ma nangone par exemple yow tu es un intellectuel hmm. warna naa wax bi nga wax teg nga ci cadre boobu. bëri ba ma gis ba ma gis. bëri na borom xam-xam dribbleur aussi ah. waaw dama ne dama ne. <laughs> Abdoulaye Dièye comprendre ma ne xam naa la. comprendre naa la bu baax man bu ma demee ba nangul la ne yow borom xam-xam uh-huh. naa nangu loo wax ci sa xam-xam nga ko tubbee. cest à moom peut-être mën na la considérer comme ku am xam-xam bëgg am dribble yu mu bëgg def rek pour jaar ci kanam. <laughs> waaw waaw mais man <laughs> man man dama jàpp ne. Uh-huh. dama jàpp ne. aju njaay buma nangone Aju ne njaay borom xamam la mhm. ma Aju ajuma njaay mo xoox ji mhm. damay japp ne ajuma njaay ci xamam la ko tek bama gis le contraire mhm. man bama gis le contraire d'accord voilà belah fofu li ma bëgg wax moy mom warna xamne man wax tëbuma tëb wax samay wax parce que daf ne man en tant que intellectuel lu war tek wax dama ci wara tek ay preuve yu leer mais mom warna xamne un intellectuel lu tolni dossier médical kenn du ko exposer yow ñeme nga jël dossier médical jambour ko xam ne dafa dee. Mhm. yow nga taxaw diko ko pour bëgg né man sama wax dëgg wala du dëgg. Mhm. mais yow lool boko défé bo xam yaa kasso kaso. Mhm. loolu kaso moo la cay fekk. dossier médical jambour ma ñëw taxaw naan ko naan ko ni presse baangi dossier baangi ni nii. dafa ki yon li la am li la am li la médecin bi wax. secret médical la. secret médical la mom la lay wax. loolu. même médecin bi amul droit publier ko. sauf bu ko yon santé. mais léegi mu bëgg man mu bëgg man. Mhm. nee man bu may wax wax jooju dama war a war a andi ay preuve non mais soyons sérieux quand même. ah comme da ngay provoquer pour am moom mën na la provoquer pour am penalty. non mais man loolu du ko am ci man <laughs> parce que en aucun cas. Mhm. en aucun cas man awuma droit awuma droit. Mhm. génnee loo xam ne dossier médicalu jàmbur boo xam ne dafa dee. ñu si ko am ñu ne am na temps am na lay am na lii am na lii. Mhm. man mu ñëwaat di ko exposé et puis awma ci droit du ma mbokk. du ma mbokk wala ñaar. non ñaar moo ci jot faatu. kenn gi ñëwoon na fii ci émission bi fii nii maag moom ñoo àndoon. bien sûr fa la doon liggéeyee. maintenant la question lan mooy firndeel ni. Mhm. kooku liggéey ba mu doon liggéey ci usine de plomb moo ko tax a faatu. xam nga dafa am lu ñu naan relation de cause à effet. Mhm. n'est-ce dafa doon liggéey foofu musul feebar dala musu koo dal. mu commencé liggéey foofu dem ba ci biir mu sentir ne wératul. mu bàyyi. feebar bi noonu la continuer mhm. di faju di faju ba ni mu xëyee dee mhm. mais képp ku ñu naan mu ngi doon dem hôpital di faju mhm. mais war nga xam ne hôpital am na ay kayit yu ñu ko bindal hôpital am na feebar bu ñu ko diagnostiqué hôpital am na certificat de genre de mort loolu yaakaar naa ñëpp war nañ ko xam te yooyu yëpp jot nga ci non yooyu du mu ci xuus franchement loolu du mu ci xuus parce que dossier la boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñi nga na ñu ñu ngi kiy liggéey parce que dafa am dossier fu mu war a dem ok usine bi fan la toll usine baa ngi njaxat. ci mhm. lu dër ci loolu. ma profité ci loolu. ni nga ko waxee ma remercier honorable Mm-hmm. honorable député Aram Ndiaye mm-hmm. nga xamné franchement liggéey na ci liggéey bu am solo mok honorable Léymou Touré bi génn aduna yalla na ko yàlla yërëm xare ko aljana liggéey nañ ci liggéey bu am solo ba bi mujjé sax ñun ñi mm-hmm. honorable moo ñu recevoir bureau jël dossier bi amé ba ba sa instant bi ñi waxé ni honorable bi def na ben lettre écrite adressé ko au ministère au ministre de l'environnement voilà te instant boobu fofu le dossier bi tollu mais di wax né tej bu njëkk ba mom joué na ci rôle bu am importance ba ñu tej ko légui nak usine bi dañ ko tijjiwaat mais ñom niñ ko waté moy dañ dem. Mhm. bañ ko tejé tej bu mujjé bi dañ dem créer benen usine. beneen tur beneen tur. Mhm. UARL. c'est nekkatul Gagnysa Gagnysa la tudon usine bi. Mhm. léegi ñom ñi dem par des manœuvres comme tej nañ ko ñu né bon nañ utiliser d'autres procédures. pour wat ko. wat ko ki nyan rekwate ben e bi mwoy euh, meri def ki am responsabilite am solo bou reysak layo woy hmm. genaka paske lolou se son de etablismak klasè

ñu installé usine bi ndax loolu amul woon amul mais ki ngeen fi invité woon fii nangu cee xuus mais moo la gën a xam ne étude d' impact environnemental ba mu ci seen mairie boo demee mairie ba tey étude baa ngi foofu hmm. lu tax publier wuñ ko lan moo tax publier wuñ ko étude d' impact environnemental ba mu nga mairie. est ce que dañ ko republier. waaye mais bien sûr. Ah nit ñi dañ ko man tey jii man man tey jii man tey jii. Hmm. en tant que citoyen dama am droit man. dem. ñu ne ma laaj leen ko. Mhm. ñoom ñu jox ma ko. Mhm. xam nga la laaj yi fay. Mhm. bu dee dañ ko war a photocopier. man ma fay man maay fay photocopie boobu. photocopie loolu bépp document boo xam ne mairie mu ngi koy travailler te du document confidentiel. loo xam ne ci population bi la jëm muy budget muy délibération lépp lu mu mënta doon. loolu citoyen bu nekk da nga am droit dem agg ñu jox la nga dem fay les frais. nga yóbbu sa kër. yaa ngi wax ne audience amul. non audience publique bi am na. mais dañ ko dëpp fi ñu ko teg moo dul yoon parce que audience publique bi mairie lañ ko defee. est-ce que du woon contexte bi. non loolu audience foraine amul lu justifier le contexte. ça n'existe pas. ban jamono loolu. Ah, Covid bi ñëwagul woon. n'est-ce pas. Mhm. léegi ñoom audience bi salle délibération loolu ma koy insister ñoom loolu la ñuy bañ a dégg dama ciy insister. salle délibération non c'est ah man li may wax nii. li may wax nii. Mhm. du samay kàddu. mais les conseils municipaux yi fekkee délibération boobu ñoom ñoo taxaw wax ko. Mhm. n'est-ce pas. ñi nga xam ne jeunes yi nga xam ne demoon nañ fa ak le chef de village de Ndiakhate. Mhm. moom dafa taxaw ne ñoom dañ leen ne faire lañ fiy defar. ay weñ lañ fiy defar ay weñ. waaw te loolu un conseil municipal boo xam ne. Mhm. du ma tudd turam nag. Ah. waay un conseil municipal boo xam ne fekkee na délibération bi. taxaw na ne effectivement moom fekkee na mais dañ ne woon fer lañ fay defar. suñu rencontre ba ñu amoon fële. Mhm. Euh, ba ñu amoon foofu noonu. si ak suñu activité boobu. am am na mhm. benn bu njëkk a def. Mhm. am na benn conseillère conseillère municipal municipal boo xam ne invité woon nañ ko. jour boobu taxaw na ne dëggal na ne. Euh, audience bi salle de libération lañ ko defee. dëggal na ne waxuñu leen woon euh, recyclage de batterie à plomb mais fer lañ leen ko wax. muy trois conseils yoo deux conseils ak benn conseiller boo xam ne. ñoom taxaw nañu fekkee woon nañ loolu dëggal loolu. dëggal la ah, mais loolu nag kan moo ci mën dara.

Mhm. man bu ma ca nekkoon. Mhm. bu ma comprendre damay dàq parce que fer amul benn danger ci loolu métano mhm. féra amul benn métaux yooyu amul benn fer bu dee fer amul benn problème ci loolu loolu amul benn danger. mais plomb nga xam ne danger bi. danger bi plomb bi du man maa quoi gi nga dafa am Sénégal dafa am centre benn centre centre anti. anti poison. centre boobu ñoo taxaw ñu ne. loolu du samay kàddu parce que moom bu fekkee ay preuve la bëgg rek. Mhm. bu tapee ci net bi tapee centre antipoison bu Sénégal. Mhm. n'est-ce pas. dina gis rukki document yoo xam ne Nations Unies. Mhm. comme bu mel ne Sénégal. centre antipoison bu Sénégal am na États-Unis. boobu ñoom ñoo def ñëw ngañ jaw waaw caaroy. ñoom ñoo def étude yi. ñoom ñu ne am na fukki xale ak juróom ñaar ñett yoo xam ne dix enfants yoo xam ne dee nañu. plomb bi moo leen rey parce que usine gagné saa bi foofu la installé woon. n'est-ce pas xam nga loolu ay lu clair la une boobu tey moom moo nekk njaxat. Mhm. foo xam ne biit xale yoo xam ne dee nañu. Mhm. ñenn ñi dañoo feebar. Mhm. ñenn ñi am feebar insuffisance rénale ñenn ñi am tuberculose. ñenn ci am ay avortement. loolu c'était à Thiaroye. yàggul si en 2007 2008 2009. waay une boobu ñu ne moom la ñu andi njaxat tout près de la population. ñu ne bu waa njaxat fee commencé feebar. du ñu liyee usine bi ak loolu. fan la xeex bi toll. non xeex bi fu mu toll nii. Euh, rencontre bi ñu am c'est dans quelques jours c'est avec le ministre. Mhm. avec le ministre de l'Environnement. oui waaw parce que ministre bi fi nekkoon ba mu ko tëjee. Mhm. Mhm. dafa bind benn wane ne usine bi dafa dangereux. usine bi waruñ not not baa on peut être envoyé wu ma la note bi ministre mooy ministre Alioune Ndoye dafa préciser lan il tax mu une usine bi. mu bind après. service yi nga xam ne mooy service technique yi mhm. bañ defee demee sur le terrain lii la ñu mhm. te produit boobu c'est dangereux pour la santé mhm. des personnes pour pour pour nit ñi wax ko ci wala pour nit ñi pour gàncax gi pour pour pour pour mala yi d'accord loolu tax ñu tëj ko léegi tey jii nii

ci naka ci ban fan ça dañ bu créer établissement classé yu mel non audience publique day am bu changer tour bi wala ñu changer contenu wala lu ñuy wala ñu yok mhm. dañuy respecter la même procédure jaarat encore mairie defaat audience publique waxat nit ñi ba nit ñi ñu ubbi wat mais ñom way est-ce que respecter nañu procédure ba ngay baram kan moy maire man may man may man may man may maire par exemple uh-huh. ma gérer commune bi y'a amul ben usine buñ fi taxaw non amul ben usine buñ fi taxaw te du jaar sama loxo hmm. une bu fi construire fi hmm. ci mairie Moussa ci loxo. Hmm. commune ba. Hmm. commune bi validé. mu pour commune il faudra que population bi d'accord ki né une bi mais joxe exemple ñet zeng fi bëggon nañ fi installer carrière. Ah. mais ba bañ demee ci maire mais des yebal ci wa ñet zeng ñet zeng xinin ñun bañ man rencontre fait féké na. ci def non defuma ci suuf. Ah. man damaa posé une question yu l'air. nañ. mais mais pose question boo poser posé xëpp la. question boobu nag question may ma ko. ci ñi nga mhm. dañu bëgg créer carrière wala ñu bëgg tabax usine. Mhm. mais ba ma leen ko laajee. Mhm. ñu xam ne lii du dëgg. Mhm. du yoon. Mhm. mais déggatuñ leen fa la réunion ba jaar a tas. <laughs> moom mooy xëpp ko non du xëpp suuf parce que loolu droit wu. ñi fa dëkk la. mooy yow tey jii yaa ngi bëgg samp carrière. population bi war a waxtaan ak population bi nga wax leen en terme d' impact ñun dañu dam leen laaj. dossier étude d'impact environnement jox leen ñu ko parce ñun am nañ droit chambar ko wutuñu benen cabinet hmm. mu hmm. chambaral ñu ko hmm. ba pare ñun loolu lañu laaj daaj laaj leen seen dossier entreprise bi nan la tuddok yoy yëpp parce que du ci ay tour rek ñun leen jox leen ñu le dossier là ñun tam ñun ni mën ko chambar très bien euh, kon ñu ñaan yalla suñu fofu di am safa kon kon kon fi may tëjee foofu mooy usine njaxat bi biñ ko waree changer wat encore bu ñëk ba respecté wu dara deuxième ba aussi lool maire lañ koy laaj ça c'est clair maire lañ koy demander comment se fait-il que usine bi ñëwaat ubi wat té procédure bañu wara jaar bu féké ñom respecté wuñ ko mais dafa am droit arrêter ko té ñom bu défé defee détournement d'objectif man mm-hmm. objectif moy créer wut usine fer. Mm-hmm. ñu dem ba ci biir maire gis né mm-hmm. usine fer li défar usine fer. loolu wul won sax muy ag deg. soxla won mu koy ag moy direction de l'environnement et des établissements classe soxla won sax mu fay ag mom moy jël décision xolal arrêter affaire bi. pour cause détournement d'objectif mom maire. à chaque compétence am la mhm. à chaque fois da vous di dut le maire ci silence peut-être ak attitude bi nga avez par rapport à l'usine, mhm. selon vous la mort waral. non on ne sait pas parce que tout simplement adressé à plusieurs reprises des lettres. Mhm. mais comme mode de gouvernance am mooy noppi. da nga jàpp ni dafa mënut wala daf ci am intérêt. non man dama ben ne benn incompétence am na ci. n'est-ce pas. de mooy ñàkk xam liñ la dénk. am ci. waaye wóorul ndax daf ci am intérêt. <laughs> waaw loolu moom du ma ko wax moom. <laughs> loolu moom xam naa lenn moom leer na ma moom. Euh. incompétence am na ci. Mhm. ñàkk xam am na ci. cuune am na ci. ak def. wala neex si am na ci loolu moom seen seen i waxante yéen yéen la euh, bàyyi Ablaye ci laaj bu mujj bi rapidement Ablaye laay juróomi moo ñu dese. defe naa ne juróomi moo ñu dese. Mhm. defe naa ni. Euh, ganu kat moom mm-hmm. li nga koy teralee mooy nga jox ko micro <laughs> ganu politicien li nga koy teralee mooy nga si nga may ko cëru politique mm-hmm. mu wax ci cadre politique mm-hmm. euh, ginnaaw bi ñu jógee ci élection yi weesu la ko tàmbalee ca élection locale ya jaar ci élection législative ba élection présidentielle kuréel nga bokkoon bokkoon ci Yewwi Askan Wi niveau local ngeen demoon ci élection avec le maire Momar Sis mhm. mo gagné won léna mhm. mu def leen lu metti mhm. <laughs> malheureusement donc la nga xamné mo amone ñi lire géopolitique gis nañu mu ngi ñëwaat parce que division yi mu ngi ñëwaat benen bi moy yeen ci niveau pastef ngeen gagné li nga xamné moy élection présidentielle yi ngeen japp ni war ngeen am benen taxawoo tay ji Mansour ci bir pastef yaangi wax ni euh, du yow yaay bop pastef Mm-hmm. mais am na loo ci incarner lo xamné japp nga ni mm-hmm. peut-être euh, di nga jité ji Pastef mm-hmm. té foré dañ ko ci sa lammi nga wax ni Pastef dina amé ji candidat au niveau local loolu je pense que mën nga ko confirmer <laughs> loolu man mako wax ah, <laughs> ah non dañ ko for dañ ko for dañ ko for dañ ko for mom moko wax sax <laughs> loolu mom moko wax donc liñu bëgg xam rek moy tay ji lan moy taxawayu Pastef keur Moussa en ci biir keur Moussa mais aussi au niveau national Euh, voilà donc euh, taxawaayu Pastef mhm. yaakaar naa ne taxawaay boo xam ne moom la ah. mhm. mhm. c'est-à-dire nek ki logique bu njëkk bi moy nek ki logique gu conquête du pouvoir parce que en tant que parti politique en tant que parti politique voilà conquête du pouvoir param fexe ba jot ci réew mi loolu alhamdulilah yalla defal nañu ko ñu ci sante aussi population sénégalaise yépp parce que ndam li du ndamu Pastef du ndamu nous avons du ndamu coalition Jomai mhm. mais ndamu Sénégal je pleure parce que le Sénégal mhm. beaucoup de changement mhm. et que nous avons gisuñu woon dara changement il y a un ma invité après juste après élection yi voilà affaire bi euh, plébiscite la la population a plébiscité Jomai, voilà on est nekk euh, président de la République donc bon moi taxawaay bu njëkk bi toujours qui conquiert du pouvoir parce que au niveau local. Mhm. on est dans l'opposition. oui ah, au niveau local. au niveau local ñun opposition là. une comme là. dafa jax comme voilà dafa mhm. donc au niveau local on est dans l'opposition. Mhm. On a souvent. ñun bu ñuy sànni Hmm. au niveau national naan hmm. liggéey bi bi ñu leen joxe di commencer des critiques hmm. naan dañuy opposé wu man sama me suis dit que ne peut-être ñenn ñi xamuñu luy opposition parce que opposition bo gagner pouvoir dafa am li ñaan délai de grâce may temps bo xam dañ la kay may muy trois mois mais trois mois gu jotagul yow nga commencer di critiquer ab gouvernement te ñi kay critiquer ñu nek fi au niveau local. mais ñom lañu wara critiquer au niveau local. ça lolay problème bi. ça ñi ñuy critiquer au niveau national n'est-ce pas muy waa APR yi fi nekk fii ci commune bi. Mm-hmm. dañ koy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoom ñoo ñu critiqué au niveau national. waa APR mooy ñoom ñoom maire. waaw ñoom maire waaw bu ma nee APR kay jeexal na. peut-être mooy maire ak équipe am ñëpp ñu ma àndal ñëpp. peut-être votre futur allié. allié fan. Pastef. <laughs> Ah, en tout cas politique daal lañ naan on dit jamais jamais mais en tout cas c'est pas envisageable. Mm. ah bon. waa Pastef. ah yéen wuti wuti leen pour pour kii ak ñoom. monsieur le maire nga wax de waaw waaw monsieur le maire la wax de waxul waaw monsieur le maire waxul waa waaw monsieur le maire la wax waaw mais tey jii man ne dañ toll euh, nañ politiquer mhm. dañ ko a mhm. Mhm. fu nga dem lang fa loolu dafa war a jeex Sénégal monsieur kilifa la de te la de waaw punka la ñëpp ko soxla de moo tax nag moo tax toll foo xam ne lu mu doon doon kilifa ñun ñi nga xamne ay citoyen lañu ñun xam nañu li doon intérêt commune bi mhm. n'est-ce pas du intérêt commune bi nekkul ne pouvoir bu jë jóg jëw nga ànd ak moom mhm. loolu soxlawuñ ko soxlaatuñ ko xam nga la lañ soxla nit ñi mhm. ñi nga xam ne dañ fi nekk xeex xeex ba jële fi nguur gi fi nekk ndax ndëngite jële fi nguur gi fi nekk ndax yi ñu doon def gërë gi fi nguur gi fi nekk ndax toog muy dox ñooñu équipe boobu lépp la ñuy boole bare voilà lépp la ñuy boole bal dañoo toll ci. bale rek jubal jubanti. ju jub jubal jubal jubanti. Ah. loolu nag bu ñu koy wax. le niveau national kese taw la ñu wax de. waaw le yaakaar naa Kër la war a a mhm. am. mooy jub jubal jubanti te yow nag da nga doone da ngay jub jubal jubanti ba pare. Mhm. ña nga xam ne ñoo fi nekk di dëngal boo ba tey jii nga ne da ngay àndat ak ñoom. Mhm. voilà. an an an ana seen relation waa Yewwi Askan Wi. non ñun moom pratiquement. Mm. xam nga des fois nit ñi loolu la confondre. dafa ce qu'on appelle des coalitions politiques. oui n'est-ce pas. Mhm. coalition politique c'est-à-dire élection day jot. Mhm. yow ajuma man maa ngi bokk Pastef. waaw keneen mu ngi parti. Mhm. mais parti bu nek day liggéeyal bopam parce que une coalition bi du man may déterminer damay coaliser telle personne damay coaliser telle personne. ça c'est des alliances yo xamné au niveau national lañ koy tënkee ba paré mhm. mais bu amé mhm. aljuma bu par exemple Pastef. pur taxaw ak ñep créé waat nañu ben surtout Ben, coalition bo xamné ne wuñ ko yéwé mala nenen lañ ko tuddee waat. mais ñun obligé tënku ci. dañuy obligé. Mhm. mais arna comme loolu amagul. Mhm. ñun nous parti bu nekk. ñun mhm. dañuy dañuy dañuy ci suñu logique. mooy ñun dañoo jàpp ne ñun ñii dañuy am suñu élection locale. dañu jàpp ne Pastef bu élection député yi di ñëw tamit. jàpp nañ ne danañ am candidat am candidat nag. loolu parce que yaakaar yaa ngi wax sax ne man maa wax man maa wax ne. waay waay Pastef day am candidat. mais Pastef moom laa déggee. Mhm. ci moom li mu ko waxee daf ni moom euh, Pastef euh, élection yi ñëw moom képp ku mën andal yaay nek ci gannaaw way mom wa mais Pastef Pastef. Mhm. parti politique la bu nek au pouvoir. c'est normal mu am gis-gis bobu c'est normal ñun ñu am gis-gis que ne. Mhm. suñu vision la. Mhm. mais on ne sait pas li xew. xamuñu sax na dinañ fekkee. on ne sait pas. mais ñun c'est normal ñu am gis-gis que ne parti politique bu nek da nga am gis-gis man sama candidat. candidat bi sama man lay génnee. té sama candidat bi may tek ni mom moy doon candidat kurel coalition bi nga xamné ëlëk dinañ ko défar sama parti lay doon. am am droit ne par exemple Pastef. ñun ñu ngi liggéey suñu liggéey. Mm-hmm. bu demee ba desul dara élection locale jot. Mm-hmm. ñu am coalition. Mm-hmm. coalition ba jàpp naa ne. candidat bi ci parti Pastef lay jógee. benn parti aussi day jàpp la même chose benn parti bi jàpp la même chose. mais am na des règles yoo xam ne moom mooy régir euh, kan mooy doon candidat. c'est-à-dire logique bi ngeen demoon en deux mille vingt deux ci niveau one love palor ngeen dem ba ci pas niveau one loolu moom jël ko teg ko fële. ndax la non parce que xam nga lu tax. dañu toll dama dégg ay kàddu yoo xam ne yaakaar naa ne looloo tey yàq. Mhm.